mom lay nuyo nuyu na aduna yep pour képp euh, di nuyu aussi ñi nga xamni yag nañ di top yi nga xamni mom lay def muy dessin yi franchement di ko rafetlu di ma ba tax tay xina ñu gëna am sañ-sañ ci di xol naka lañ war def ngir di leen gëna a waaw turu jama bi xina amna ño xamni dañoo fokk ni sama surnom la wala no d'artiste la mais euh ci sama jouru ngenté la turu jama jogé <laughs> waaw parce que euh, sam papa man may taawam léegi d'après ñoom li ma wax quoi ci jour euh, tudd bi damay wax nag loo xam ne yow sax laa koy wax freram la mu tuddee quoi mais du ma wax tur bi léegi mais ci digg xew mi la yëkkati liir bi ci kanamu ñëpp ne leen kii jamaa la à partir de jour boobu ku ko gis da nga naan ko ana jamaa à partir de jour boobu ñëpp jamaa lañ may woowee pour wax la sax benn anecdote même sama ay kayit actuellement jamaa moo ci nekk. waaw bu damay wax ni Jama tuddu euh dekk ci banlieue bi bu fekke ci sama carrière xamna naa ne lu yaatu la waye comme teunk nga wax art bi dama ko donn dama juddu fekk sam papa nek ku amone bëgg-bëgg lol ci mbiri art yamul won sax tay ci domaine bi nga xamni mom lay spécialiser wu mais ci ay sam papa da don def musique da don def peinture di def ay affaire yu bari yo xamni lepp ci walu culture ñun tamit ñu juddu nek ay xalé fekk fa jumtukaay yooyu di ci fo tey loolu mun naa wax ni ci tënk rek moo ñu jàppandal ba tey ñu am benn ci yooyu boo xam ne yàlla jagleel nañu ko muy dessin bi may def waa xam nga aar moom domaine bu mu ci mën a nekk nekkul loo xam ne nit ki dafay am tànneef ci wax ni fii laay orienté wu mais ci li la yàlla jagleel xëy na nga koy wane bu demee ba nit ñi yëg seen bopp ci benn ci yi nga xam ne yaa ngi koy def peut ku la ci sollicité su boobaa mun naa wax ni loolu mooy def xëy na ngay mujj di xam ban position nga war a féete mais nag man desin moom nekkul loo xam ne dama mën a wax ni dafa am rek fooy duut baaraam ne lii laay dessiner mais dessin lépp luy lépp lu ñu mën a jëmmal di ko gis rek man dama koy dessiner parce que mayu yàlla la yàlla moom ma ko may depuis ma nekk xale di xàmmee si laa koy def ba tey loolu la ma yàlla mujj nattoo aussi mu nekk sama micc sama sama liggée xeex boo xam ni mun naa wax ni tey jama moom lay xeex parce que comme sànq li ma wax ci orientation bi man dama doon dessiner lépp loo xam ne rek lu ñu jëmal la mais mu mujj dem ba nit ñi ci seen bopp ñoo ma ñoo ma ñoo ma yëg ci di dessiner waat ay portrait li ñuy wax portrait tey loolu moo indi sax ñu may wax le portraitiste sénégalais léegi nag comme tey nit ñi ñoo ma jagleel tur boobu def ma portraitiste sénégalais euh, loolu moo tax may xeex ni. képp ko xamni ni donte dessinateur nga waye bu fekkee sa may eggul ci nga mën dessiner di dessiner wat portrait muy nek lo ne fay réel da nga wara bayyi parce que amna na loo même yow buma la ko waxee di nga xamni lo yag di gis la yag nga di dox ci mbedd di gis kuy dessiner wat ay sëriñ wala yu demee noonu ngay gis ni melokan bi mi am lele sax yow mu bàkkaar lola parce que dinañ ko dessiner lele mu am melokan boobu da ngay xol sax sa xel même boko ko waxul di nga xamni li rafetul yoyu nak man sama combat la. bu ma sañoon wax dëgg yàlla bu fekkee bëgg-bëgg la si ñoom ñooñu dañuy dem jàngi mbaa ñu gëstu ci ba nga xam ni xëy na seen xarañte yokku nañ ko ñu doog a sañ a jëmmal ndax nag yombul pour nga nekk portraitiste c'est pas facile ndax dessin ay version yu bari moo ci nekk ndax du da ngay doon dessinateur rek nekk portraitiste ndax portrait benn version la ci biir dessin am na ñoo xam ne seen domaine spécialisé ay abstrait la wala ay paysage dessin dessin daal mooy maanaam comme ni ngay gisee ñuy def photo natal xam nga photo moom tënkuwul si ñu ne da nga war photo siège bi kese wala da nga war a photo téléphone bi mbaa da nga war photo nit image moom ngay wane léegi kon su fekkee dessinateur nga aussi am na dessinateur ñoo xam ne dessiner objet lañ gën a mën par exemple buñ la dessiner loon benn téléphone appareil bi dinañ ko valoriser de telle sorte da ngay gis ni li appareil réel la mais du caagan ni ñun niñ ko dessiner noonu aussi la ñuy amee technique bu doon nit la ñuy dessiner parce que xam nga nit da ngay yaram la yaram bokul ak benn je sais leneen lu bokkul ak moom léegi yooyu yëpp nag dafa am ay détails yu si nekk yoo xam ne xëy na bu ma ko doon développé ci loolu xejul ci biir ay waxtaan yu demee nii waaw mais loolu rek la ah, man sama domaine spécialisé portrait la. waa xam nga jamono yabooy moo toll foo xam ni si lépp lu nit di yëngu rek am na ñu ko mën am ñu koy defar am ñu koy yàq ci lu mu mën a doon nag secteur boo dugg rek. franchement ñi si nekk ay professionnels la plupart sax mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen ruxu kenn du leen gis lu ci ëpp ñi sañ a fés di wane seen bopp mooy ñi nga xam ne sax mënuñu wala xamuñu dara ah man de su ma lay jox exemple si sama bopp dama lay wax ne malgré lii nga xam ni yow yaa ko gisal sa bopp ba gis ni am na originalité mu impressionné la maa ngi koy def depuis depuis ma xàmmee ba tey waaye jusqu'à présent maa ngi nii même média yi sax dama leen di daw pour wax la yow sax am nga exclusivité jama yesaay dama lay wax dëgg laay wax ah dama làqatu ci sama coin di perfectionné wu pour bis bu ma demee sax bay wane naa won nit ñi loo xam ne kenn du ko mën a dindi waaw xam nga jamono fi mu toll lépp lu ñu di def daf ci war a def li ñuy wax formation man nag malgré du ma ne damaa def formation boo xam ne damaa dem ca école ba di ko def mais par exemple bi nga xamee ni yéeg naa ne lii sama bëgg-bëgg la te yàlla may na ma ko képp koo xam ne yaa ma yaa ma yaa ma ëppoon niveau ci affaire bi si jamono boobu ma nekk xale dem naa ci yow di am lu ma fa taataanee nga may dolli. ba tey ma jël ko di ko dolee ko ba fii may waxee sax maa ngi jàng parce que par exemple man sama bët dafa jéggi man adduna bi laa bëgg a wër looloo tax par exemple même ci sama wàllu portrait yi may def ñi gën a nekk ci monde bi di fi def ay portrait yi gën a impressionnant ñoom maa ngi gis seen technique di gis li ñuy liggéey may xool li nga li ma xalaat ne loolu peut-être su ma ko yokkee ci li ma yor mun na gën a tax man li may def gën a am originalité man taxawaay boobu moom laa am ci sama art bi may def waaw. maa ngi sant yàlla bu baax nag nekk xale ba tey samay dessin mu ngi dem fépp ci àdduna bi parce que képp ku ma xaw man ki gisul li ma def kooku xëy na moo ma jaaxal waaye ñi gis li may def bu dee am nañu bëgg-bëgg lu jëm ci wàll woowu franchement dañ may sollicité moo tax defar naa ay euvre yoo xam ne mënu ma wax nombre bi yoo xam ne tout le temps pour wax la dëgg sax man damay am problème pour collectionner œuvre parce que samay œuvre sur commande lay nekk te day dem partout dans le monde franchement. waaw man nag gën taxaw du yomb nag yaa booy noo xaaral ñu waxtaan parce que xam la laa la bëgg a wax tey kooku nga wax bu fekkee jël nga benn image boobu design maa ngi koy nuyu de passage ah boo jëloon benn image jox ma ko jox ko ñu war ko dessiner moom mu takk bëtam man ma bañ a takk sama bët maa xam nu may def man ak sama technique bu ñu paree léegi résultat final bi la ñu war xool ban portrait moo gën a réel wala ban portrait moo gën a original Ya, say fofu la affaire bi nek mom nak mën na am may bu tax mu mëna jël bëtam takku ko sax dessiner mais man duma tak sama mom di dessiner waye xamna ne di dessiner bu ñu paree ñu xol résultat bi lan la ya a doon yasaay. Mhm. non waxuma loolu boobu kay dañ koy dañ koy dañ koy ñukkel ma sha allah comme mag mom ñoo bok li ñi liggey yalla may ko si mu mëna a ay di dessiner ah loolu de ma sañon man damay am may boobu. voilà laaj nga ma luma neex nak man bu ma sañoon kër goo dugg da fay fekk sama portrait ndax gis-gis bi ma am ci portrait mooy gis nga dessin moom mooy euh, comme ni ko mag ñi daan waxee ay nataal xam nga boo xoolee photo photo quoi moom mooy immortaliser nit am na koo xam ne gaañu na ca ba gaañu jar ñaar dërëm waaye ba tey photo moo tax ñu mën ko xam muy maamaati maam ba ak ku mën a doon ñu jël exemple même ba ci suñu sëriñ si léeg-léeg nga gis koo xam ni comme ku mel ni sëriñ Touba am na benn image boo xam dañuy wax ne boobu kese moom la am. te gis naa aussi ñu wax ko ci sëriñ su bari ça veut dire bu dul woon ak benn foto boobu nga xam ne moom la ñu gis ci moom nit ñi mënoon nañoo bañ a xam nan la jëmu ji meloon. léegi nag dessin tamit role boobu moom lay joué mooy dafay din maanaam day dundalaat dekkilaat loo xam ne dee woon na te kenn ku ci nekk aussi bu sañoon dafay am loolu beneen bi mooy originalité bi nga xam ne moo nekk ci desin nekkul ci photo parce que kii aspect artistique bi moom moo tax. lu ñuy dessiner la ak di ko nit a ko def ba pare da ko loxo lañ ko defee image bi aussi œuvre d'art la légui lolu nek lo xamné ne man buma ma par exemple tay euh, kër go dugg rek fekk fa sama portrait c'est comme kër go dugg ni ngi fay fekkee ben photo buñ fay def pour mandargal ñu xamné ne mo nekkon suñu mam wala mo doon ben membre ci famille bi légui lolu tay mënon nañ ko def en dessin c'est comme par exemple man même ay sollicitation ci nit bo xamné dafa bëgg offrir cadeau jëkkëram koo xam ni daf koy def cadeau d'anniversaire wala ko xam ni mo gañu bu yagg photo bi benn photo carte d'identité bu ndaw rek la won ci kër gi famille bi sax xamuñu ko man mun naa dundalaat photo yoy ba nga xam ni euh, famille bi yépp à partir de dessin bi même boudé mom lañuy jël reproduire ko en image dañ koy mëna am par exemple moy dina dundalat photo bu dee woon ci famille euh, aussi buñu waré waree bégal nit jaaré ko ci portrait ku ñëw ma defaral la portrait boo xam ne koo ko jox kadoo incha allah dina gis boppam bu baax ci loolu waaw. waaw euh, mënul yomb nag waaye tamit ku ne mën na see jot ndem doole yemul ku ñëw rek fi sa doole toll daañu jëflanteeg yow yeesaay. waaw comme nag képp koo xam ne rek yàlla may na la nga yëngu ci aar ndax nag boo demee ba toll ci jëf. mooy artiste bi bu fekkee nekkul di jëf moo xam da ngay way boo nekkul sur scène di way maa nga dugg si joo di way peut bu ñu la gisee wala kiy togg ak yow si jotaay dina xam ne nit comme moom lay waxal mais bu dee inspiration bi ñëw na wala nga war a wane sa bopp moment boobu nag am na leneen loo xam ni loolu mënuñu koo nekkul lu ñuy lu ñuy mën a màndargaal wala lu ñuy wax ba nit mën ko xam mais beneen dimension la boo xam ne nag wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ fay toll nag waaw nag yaakaar mooy li tax sax ñu mën a am garaatu nekk artiste bi waaw mooy moment bi ngay liggéey li lay animé ba def loola li ngay def euh, loolu leneen la. loolu mooy journaliste bi bu toogee ki muy laaj ni muy amee yëg-yëgu xam ni kii lii laa ko war a laaj te amaana du sax loo wax ak moom loolu mooy li la animé di ma anime di animé keneen koo xam ne day yëngu ci li ko yàlla may. jërëjëf kontaan naa man tamit trop euh, comme ni ma la ko waxee sànq ne la franchement am nga exclusivité parce que benn waay bu doon laaxatu ndax jamaa laa tudd euh, te jamaa ku ne xam na ne lu jafe la. Sénégal gii ñu nekk or sax ku ko fi am danga koy bàkkoo kon boo amee jamaa moom da am leneen te franchement damay wax ni sama turu jamaa bi euh, moom mooy jamaan taar xaw ma ndax yaa may dégg man jamaa laa boo xam ni aar bi ma yàlla jagleel jaman taar laa ci bëgg a doon c'est comme un jamaan terre comprendre nga li may wax yes naa ya peut-être loolu benn parenthèse la mais franchement li muy war a wax lenn kese la mooy euh, Sénégal. ni ñu joxee valeur yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen euh, je sais pas yeneen artistes yi yiy yëngu ci leneen soxla woon naa ñu jox ko nag ñu jox ñu ko ñun artistes peintres yi parce que art plastique ci art la bokk ndax tey boo demoon extérieur keneen ki nga xam ne artiste la di yëngu ci leneen du ëpp valeur artiste peintre bi. waa xam nga liggéey weesuwul. li nga xam ne yow yàlla may na la ko nga koy valoriser maanaam yaa ngi koy def foo toll yaa ngi koy yaatal yaa ngi koy yaa ngi koy wane mais c'est dommage que Sénégal bii ñu nekk nag xëy na bu ñu gisul nga def lu leen jaaxal léeg-léeg loolu mun na tax duñ la bàyyi xel wala ñu gesu la mais nag doon naa yëg lool ci côté culture Sénégal bi ñu jël suñu art bi jox ko valeur comme niñ ko joxee musique jox ko leneen quoi franchement loolu lu may jooy la